fekkee jàmm yàlla ci barke Seydina Muhammad fi may jeexalee ne moom day ne dafa muy jeexale yéen mbokk jullit yi yéen mbokk jullit yi fan yi fan yi ñu ngi ci ñu ngi ci ay wàccaayu ay wàccaay élection élection législative élection élection élection ay député ay député ñooñu nga xam ne mooy ñi nga xam ne dañoo war a dem ne dañoo war dem dem wuyu ji. wuyu ji ci pencum. ci ndawum réew yi. ndawum réew yi. mooy assemblée. mooy assemblée nationale. fan yi ñu ngi ci. ay campagne ay campagne ñu ngi ñaan yàlla. ñu campagne bi. yàlla na jeex ci jàmm. ne yàlla na jeex ci jàmm yaa rabbi. fitna yi ci commencé. ci commencé. yal na ci yàlla tuur. na ci yàlla tuur. ndox mu sedd guy ndox mu sedd yaa ci lorule. ñi ci lorule. yal na leen yàlla. mais na leen yàlla. delloo seen sago. delloo seen sago yaa rabbi. fitna ci am. ne fitna yi ci am. yal na yem foofale. ne yal ma bëgg nag. mu bëgg nag. man. moom sëriñ bi. ak yéen. ak ñu bokk. ñu bokk yeewu. yeewu. yeewu. yeewu dafa baax ci jullit. daa baax ci jullit. buy nelaw. ndax day jullit boobu jullit. sa jullit des na. sa jullit des na. jullit bu yeewul. sa xamoo li xew. xamoo li xew. sa jullite. des na. mais des mbokk jullit yi. ndax mbokk jullit lu baax la. lu baax la. diine terewu ko. diine ko. ndeem àndul ak. ndeem àndul ak. fen. ak fen. ak wuruj. ak wuruj ak tappale. ak tappale. ak naxante. naxante ak fitna. yonent yàlla Muhammad yonent yàlla Muhammad daana négocier. daana doon ak ay buur. négociation yooyu. ngir maslaha. maslaha. Medina la. Medina ak jullit yi. ak jullit yi. daana toog ay yahud. daan na toog daan na toog ak ay yahud ngir maslaha maslaha bu lislaam ci loolu politique la loolu la mag ñi fi weesu mag ñi nga xam ne mag ñëpp mag ñëpp daan nañ jëflante daan nañ jëflante ak nitu yàlla ak nitu jëflante daana ak Lat Maba Jaxu Ba. Maba Jaxu Ba. daana jëflante. daana doon jëfan jëflante. ak kilifa yi fi ne. kon politique. kon politique. mënul ñàkk. ni mënul da ñàkk. ci penc mi. ndax politique. ndax day politique. benn borom xam-xam. ndax benn borom bu mag. bu mag wax na ne. ne moom day wax na ne. ne am muy Amadou Hampâté Bâ. ne am ak. Amadou. Amadou Hampâté Bâ. nee na politique. nee na politique. yat bu ñu sànni la. ne la. ci wetu yoon. ci wetu yoon. ku am xel. bu ko foree. bu dafay defar. ne day defar. defare. ku amul xel. bu ko foree. bu ko foree. day yàqu. ba noppi yàq. yàqu day yàqu day yàq. politique gu saaga. ne ci biir réew mi la. biir réew mi. xastante xastante fii la am fii la am noonante noonante fii la am waxante ay juddu waxante ay juddu fii la am fii la am waa ji juddoom ne waa ji luy sa yoon naan sàngaraam luy sa yoon génnam guddi génnam guddi luy sa yoon ana programme yi avancer loo réew. ana programme yi nga xam ne ñoo avancé loolu réew. ana développement. ana développement. ana culture. ana culture. ana sport. ana sport. ana éducation. ana éducation. yi nga xam yi nga xam ne. lañuy tabaxé rew dañoo lim ñuy tabaxi réew mi. waaye xool leen. waaye xool leen. suñu homme politique yii. homme politique yii. ku ci wax. ka ca wax mi ngi saaga keneen. ngay saaga keneen. ku ci wax. ka ca wax mi ngi ŋàññi keneen. ngay ŋàññi keneen. ku ci wax. ka wax mi ngi tuutil morom. ngi tuutil morom. li ngeen di gis nii. li ci campagne yi. campagne loolu la ñuy yóbbuwaat assemblée. loolu la ñuy yóbbuwaat assemblée. ndax yoon loolu yoon la déedéet. li ngeen gis ni campagne ay campagne politique politique suba. suba bu élection yi yi loolu assemblée. loolu assemblée. ana yar ana yar ana diine ana diine ana teggin ana teggin ana mbaax ana maandu ana jikko yu baax yi yu réew moo xam ne muy réew moo xam ne quatre-vingt-dix-sept quatre vingt pour cent pour cent ci réew mi ci ñëpp ay jullit la kan ngeen dégg kan ngeen di ci ñoom ci ñoom ñuy wax programme ñuy wax programme luy njëriñ diine lii nga xam diine na xale yi jàng diine. na xale yi jàng diine. kan ngeen dégg mu koy wax. kan ngeen dégg di ko wax. dinañ tabax ay daara. dañuy tabax ay daara. kan ngeen dégg mu koy wax. kan kan ngeen dégg di ko wax. dinañ tabax. dinañ tabax. ay kër. ay kër yoo xam ne. kër xam ne. pour miskin yi. pour miskin yi pour baadoolo yi. baadoolo yi kan ngeen dégg mu di ko wax. déedéet. kon li as kan bi dund. askan wi di dundee. ci coono. ci coono ci fitna. fitna diine. ñoru leen. ñoru leen. li leen ñor li leen ñor de. mooy seen fauteuil yi. moy sen fauteuil yi fauteuil yi. li len ñor. li len ñor. moy fi ak weer. fii ak weer. doon député. dem nga doon député. dem assemblée. dem assemblée. am 4-4. am 4-4. am am 4-4. am 4-4. am carburant. am carburant. am. am yenn privilège yi. yenn privilège passeport diplomatique. passeport diplomatique. ñuy dem di ñëw. di ngay dem di ñëw. li rek mooy len ñor. li rek moo len ñor. politique de valeur. politique de valeur. amul ci ñoom. amul ci ñom at bii ak at bii weesu. am na ñu doon wax naan. am na ñu doon wax naan. transhumance. transhumance. crime la. crime la naka mu tey. naka mu tey. accepté wuñ transhumance yi. ndax nanguwuñu. ndax nangu ndax nanguwuñu. ndax nanguwuñu. transhumé yi. transhumé yi. ku jóge parti sàngam. te jóge ku jóge dem ci ñoom. dem ci ñoom. duñ ci duñ ci wax dara. wax dara. dañu ne muq mu xaar. dañu a diis. te démb. te ñoo doon wax ne. loolu kirim la. te loolu kirim la. ana valeur. valeur. ci yow mii. ne yow nag. àndoo nag njiitu réew mii. njiitu réew mii. motagul juróom-benn weer. nga mën a fàtte. nga mën a fàtte lim la defaloon. la defaloon. ngir di séentu. ngir di séentu lii ñëw ëllëg. ñii ñii ñëw lii ñëw ëllëg. lii ñëw kon yow ak kii. yow seen ànd. seen ànd. ànduloon. ndax ànduloon. nekkuloon ci dëgg. ci dëgg. ci fen. ci fen ak tàppale. ak ay intérêt. ak ay intérêt. moo tax xool leen mbokk yi. moo tax xool leen mbokk yi nattu bi leen yàlla teg bi leen di yàlla di teg njiitu réew njiitu réew mi fi génn mi fi génn motul juróom ñaari weer motul juróom ñaari weer fan lay campagne fan lay campagne whatsapp whatsapp whatsapp whatsapp facebook facebook alkande alkande weesuwul lii weesuwul lii moo tax ma bëgg moo tax sëriñ bi mu bëgg ngeen ànd ak seen sago ngeen ànd ak seen sago di dal ci ay cortège di dal di ay cortège ku ci dé ka ca dé perte or cortège cortège ku ci dal ka ca dal ku ci dé ku ca dé perte nga perte nga ana xalé yi dee woon ana xalé yi dé won 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2023 2023 2024 2024 ana ñu tay né ñom ana ñu ndax ndax perte wuñu ndax perte wuñu ankay ana seen ndey. ana seen ndey. ndax perte wul. sa baay. ana seen baay. ndax perte wul. ndax perte massa leen sax. ne massa leen sax. wala jaal leen sax. wala sax. duñ ko dégg. ne ñoom maa ngi giñ ci yàlla. maa ngi giñ ñii politique ñëpp. ñi nga xam ne ñu seen intérêt bopp rek. seen intérêt seen intérêt parti. seen moo leen ñor. moo leen ñor. bu ngeen di wote. bu ngeen di woote. na ngeen dem woote. na ngeen dem woote. te xam ne. te xam ne. devoir. la. citoyen la waaye jàpp ne. waaye nga jàpp ne. ñuy def nii. yii ñuy tax na réew mi soppeeku. tax day tax réew mi soppeeku. ak at. ñu mel ni Amérique. ñu mel ni Amérique. dañ ñuy nax. dañ ñuy mënul nekk. mun da nekk. développement. bu doon oto la. bu doon la. ñun Sénégal. ñun waa Sénégal. gisaguñu. gisaguñu oto ba sax. caabi oto ba sax. gisaguñu. ne gisaguñu. caabi oto bi. ah caabi oto bi. waxatuma laa taal ko. wax waxaguñoo taal ko. waxatuma laa di ko dawal. la di ko dawal. li may wax nag. moom ngir yéen la. bu leen di rayante. di reyante. ci cortège yi. yi. bu leen di dóorante. bu leen di dóorante. sànnanti ay xeer. ay xeer. ku ci bëtam toj. ku ca bëtam toj. looy wax. wax. ku ci dee. looy wax. ku ci sa loxo dagg. ku looy wax. yàlla nañ ci yàlla musal yaram nañu góorgóorlu nañu góorgóorlu nañu def lu ñu war rek nañu def lu ñu war téye suñu kurus téye suñu kurus ñaan yàlla ñaan yàlla ñi ngeen di gis ñëpp ngeen di ñuy ñëw ci man ñi ci moom sëriñ bi ñaanal sëriñ bi ñaanal nangam ak nangam nangam ak nangam man moom su ma yoon yoonam newul ci loolu nekkul ci loolu dinaa dalal ñëpp nag dinaa dina ñëpp ndax aw ma sañ-sañ ndax amul sañ-sañ nit soxla ma te du ma dalal te du bu doon góor jigéen sax góor jigéen dinaa dalal borom internal waaye li ñu bëgg. waaye li ñu bëgg. ñaanal ñu. mu ngi ñaanal waxal ak nit ñi. waxal ak seen intérêt képp. seen intérêt képp. moo leen ñor. moom moo tey dem na. tey day dem ba politique. amatul valeur. amatul valeur. tey dem na. ba nit buy politique. ñi nga xam ne ñooy politique. dafay nëbbatu. ngir lan. ngir lan yi ci ne. ngir ñaata kër ñoo tas tey. ñaata kër ci diggante. pouvoir. pouvoir ak opposition. ak opposition. ñaata sëy ñoo tas. ñaata sëy ñoo tas. ñaata doom. ñoo bàyyi bàyyi ak ndey. ñoo ak ndey waaw. nañu góor ne sëñ bi nañu dal. nañ dal. bu ñu kenn dugal. ne bu ñu kenn. ci fitna yi. ci pexe yooyu. ci def def yooyu. def def yooyu. dinaa def nangam. dinaa def nangam. dinaa def nangam. dinaa nangam. lu ci jar dóorante. dinaa dem Tamba. dinaa dinaa dem Tamba dinaa dem Tamba dinaa dem Matam dinaa dem Matam bul dem bul dem dinaa dem loolu loolu budul sa intérêt bopp lu ci jar xeex lu ca kaso bay dugg kaso cey di dimbali ay nit dimbali ay nit xaaral xaar taaxirlu xaaral tuuti. ni loo ciy xeex. loo ba sa baatu mbubu di dagg. ba sa baatu di dagg. bala keneen di la ci fekk wala keneen keneen di la ci joxoon wala mu di la def dara. kon loolu. am na leneen lu ci raax. am na leneen lu yàlla ñu yàlla dimbali. yàlla nañ yàlla dimbali yaa rabbi nañu yeewu bu baax yeewu bu baax nañu xam nañ xam fi ñuy teg suñu tànk fi ñuy teg suñu tànk bu ñu ko defee bu ñu ko tegee bu ñu ko defee dinañu mucc dinañu mucc yàlla na yàlla dimbali ñu yàlla na yàlla dimbali yàlla na yàlla sàmm yàlla na yàlla sàmm yàlla na yàlla aar yàlla na yàlla aar yàlla na yàlla yiir yàlla na yàlla yiir yàlla ñu yàlla làq yàlla na yàlla làq fu yàq yeegul yàq yeegul buntu ngeneel yëpp buntu ngeneel yëpp yàlla nañ ko yàlla ubbil yàlla nañ ko yàlla ubbil yaa rabbi buntu barke